bopp la maa lay ziar. Ndelo ziar. maa yaa ngi am sant yàlla. mu ñëw waroon remplir contrat am diggante ak Mama Lamine yëg nga ndogal bi nga xamante ne dal na Mama Lamine dal na axlu làmb ban message nga ciy lancé. waaw ñu ngi masawu fan yi Mama Lamine di masawu tamit fan ba beneen booy bi quoi di xam ne ah, na ay ndogal yàlla mais lu ñu war a éviter la ci euh, àdduna bi ci seen bi quoi di masawu neexul quoi. Garga 2 aussi ñu koy mos rek ku sañoon rek li nga signé ak contrat nga ma ci am benn dog-dog mu mat fekk quoi mais la sant yàlla te yàlla ñu la ko bëggee woon. loolu yow ko gën a xam parce que ñëw nga fi ci làmb ji pour remplir ce contrat mais mu jëwoo bëre ñibbi lan la la def ak Garga bu demee lan la ko mën a def. waaw bon léegi ñun ñun su rek ñëpp kenn si ñun ne ku nekk rek da nga jéem a def sa kéemtalaay kàttan bu mu baax quoi ñun ñëpp. ku nekk nag sa kéemtalaam kattan bu mu baax quoi incha allah. ñëpp a jàmm. waaw jàmbaar yi ñëpp a jàmm. ñu waaj baax. waaw ñu on gère ah. on gère waaw. jaajëf jaajëf. maa lay masawu parce que doomu Pikine nga te bërki démb gis nga li nga xamante ni moo xew Pikine dal ki nga xam ne mooy Kiné Gueye ban message nga ci lancé en tant que porte de voix en tant que homme de la foot bi nga xamante ne fu mu dem représenté fa deru Pikine waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi di sant suñuy ñaari waajur ñu ngi ñaanal ci néegay di naqarlu li ko dal waa parce que jili man sànq rek maa ngi koy wax ma ni réew mi bu fekkee ne daa am lu ñu rax lu fi bokkul ñu ko fi dugal nañ ko fi jëlee ndax lii kenn xamatul lan la ñu ngi wax naan sécurité sécurité mais ki nga bokkal place su liggéeyukaay bu demee ba rey la parce que kooku kenn mënul dox seen diggante yéen ñaar ki ngay yendool ki ngay fanaanool ki nga dëkkal problème mu ñoom Maama Lamine bi gis nga ko ñuy ànd la man damaa yaakaar ne daa am lu ñu rax sëñ Sidi Muxtaar xalifa général Mouridi ñu dimbale xalifa général Tidiane yi nañu dimbale sëñ Cheikh xooxoon na nañ sang dëkk bi daa mel ni am lu ñu rax ñaseen yi nañ jug taxaw dimbale ñu ndax lii du neen. parce man fi ma dëkk man loolu man maa koy seede police su ginnaaw raay bi ma dëkk démb ci ramasse lañ fanaan ramasse kon ñooñu ñu ngi liggéey bi ñuy ñëw ginnaaw raay amoon na danger mais fi mu toll nii jàmm moom moo fa am kon lan moo xew ci réew mi di nañ fi problème mu Adji Sarr ak Sonko 14 personnes dee ci te mujjul fenn mu def at lii dee li deewaat nii léegi mu mat 14 personnes kon am na lu ñu rax ñun lu ñu waxul te lépp ñu ngi ko teg ci politique alal am na yoo xam ne nii jaru ko. ba pare nguur gi ne ñu dimbale nit ñi ndax dëkk bi metti na barki alxuraanu karim aw ma jabar aw ma doom damay dem di jëndi dund sama xol bi day jeex ki may jox xaalis bi du ma ko sax yéene ko man mën naa sax rey ci jënd ndékki bu ma facturee rek mën naa rey ci jënd ndékki kon ñiy joxe añ ak reer ak ndékki nan lañ war a def dëkk bi kenn bëggantewul ndax ñàkk gu metti sénégalais soxorul dafa ñàkk bañ a ànd lépp lu ko fi jëlee rek dañ kaa war a def man mii nga xam ni dof laa damay tiit ci sam bopp chaque dama naan yàlla bu ma rey nit wala yàlla bu ma nit rey waxatuma nag samay jarbaat ak samay doom léegi ay xale yu ndaw ñoom ñooy rayante ci seen biir keroog ginnaaw raay ñaari booy yi fa rayante 12 ans la ñu am 12 ans benn booy bi rey beneen booy bi sama koñ 12 ans la am kenn xamul cause bi lan la bu fekkee ne daa am lu ñu rax ñi ko fi dugal nañ ko fi jëlee Sénégal dëkku jàmm la. yii nii dañ ko daan dégg ci yeneen dëkk yi lañ ko daan dégg ci yeneen pays musoo musoo ko fee dégg fii Sénégal waa mais xalifa général yi nag ñu dimbali ñu sang réew mi waaw tëndmoor ànd waaw mais loolu ku ci àndul tamit xëy na doo jullit loolu ku dul ñu dul jullit sax ànd nañ ci du suñu wax waxu yàlla la li ngay wax nii waxu yàlla la di suñu wax yàlla moo ñu gën a xam suñu bopp moo ñu ëpp yërmande ci suñu bopp moo moo moo ñu ëpp yërmande suñu suñuy soxna moo ñu ëpp yërmande ci suñuy doom peine de mort bu ko fi yàlla tegee rek am na lu tax wax dëgg yàlla bu amoon tamit yëf yi jeex waaye nag comme ni ko gars yi wax gars yëpp waxee rek en tout cas tiit nañ de yëf yi yéeme na xalifa xalifa généraux yi nañ ci def ay ñaan bu fekkee lu rax la suñu biir loo xamante ne nii tey yaa ma gën a xam mais en tout cas yéeme na de yéeme na trop wax dëgg yàlla lii moom yéeme na trop bàyyi ji lii. gi. maa ngi lay siyaar. na yàlla na bu ji. li nga xamante ne dal na la ci làmb. mu ñu yaakaaroon ne Mama Lamine dina ñëw bëre ndogal bi daal ci kawam noo ko yëgee ak lan la la ji ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi di sant sang-sang yi may sant suma papa suma xarit sëñ ma tulaabu sëñ Modou Boussa Diagne ko koy santaat bu baax a baax a baax a baax ak njabootam bi yëpp di ziar sama yaay soxna Abi Mbacke mu sëñ mu sëñ daam atta di nuyu sëñ Mountakha Mbacke Bassirou xalifatulaam di nuyu kilifa diine yëpp ak kilifa aada yëpp di nuyu doomu Pikine ak doomu Kër Massar di nuyu Sénégal bi yëpp bàyyi ku joxul sa bopp loolu yàlla jox santal yàlla. te ñun joxuñu suñu bopp yàlla moo ñuy jox lim ñuy jox dañ ko koy santee tey lii lii lii lii lii lii lii xew lii dal Maama Lamine mënoon na maa dal man su daloon tey lan laay def mënoon naa xëy ñu tàgge ma wala ñu tàgge wala ñu tàgge ku ma jege. yii ay mbiru àdduna la kon natt bu tegoo ci kaw jaam bi la muy def mooy war a sant dama sant nag bu baax a baax ñun bu ñu rek dañuy sant bu ñu ñàkkee dañuy sant sant moo ñu war dara waruñu lu dul sant kon dañoo war a sant ba sant fu dara nekk bat suñ fàllu sa diggante ak Mama Lamine lan moo ci mën a xew ginnaaw ndogal bi nga xam jàmm doo lenn mënu ci xew lu dul jàmm jàmm ak salaam moo ci xew du leneen ci am lu dul jàmm jàmm kese moo ci xew bu dul dara nag bi ñu déparé ba léegi dafa rafet duñ dem ba toll fii muy ñaaw te du ñaaw te du mus a ñaaw kon jàmm jooju nekk sama diggante ak ñoom mooy continuer waaw donc may jëf waaw maa ngi lay nuyu suñu doyen vraiment nga nekk nit koo xamante ne nit ku baax nit ku yaatu nit koo xamante ne daf ñuy conseiller situation bi xew ci làmb dox ci diggante Garga 2 ak nan nga ñu ko mën a jàngat waaw situation bu metti la d'abord si ñaari mbër yi Mama toog na deux ans mënul bëree combat bi mu préparé que deux fois tey dëmb ku ko newoon tey doo bëree du ko gëm même bu ko sëriñ waxoon sax dina dina dutee nii loolu day am parce que préparé na combat bi samedi bii passé lañ demoon seen dernier face à face stade Mbaw yaa ngi fa woon benn mb benn benn dem du provoqué ji garga deux dem na ba di xeex ak moom loolu day wone ni pare woon na bëggul lenn lenn luy yàq ci combat bi bi ko lii dalee mu jógee ci seexam vraiment ndogalu yàlla moo fort kenn xalaatu ko ci àdduna donc métti na ci moom métti ci adversaire bi ki mel ni euh, Mama Lamine boo xoolee tey ñëw nañu parce que dañoo xam ni combat bi buñ ko naree reporté waat dafay métti ci moom parce que dugal nañ ci xaalis préparé nañ ci physiquement moo tax tey ñu ñëw respecté ñi en euh, règlement dinañ am victoire par par forfait su ko neexee après promoteur bi négocier waat même combat avec même un autre cachet wala mu jël beneen adversaire promoteur bi li mu na boo xoolee stade tey day moon ne rouge bi si suuf ñaari adversaires yi la ko dencaloon mais xoolal si kaw nu mu amee nit nu mu amee public ça allait être le événement ci weekend bi moom it metti na ci moom mais ndogale yàlla kenn mënu ci dara di ñaan yàlla lu mel nii mu bañ a dalati ak lu làmb parce que day day day day day tilimal deru làmb loolu moo tax vraiment euh, lu metti la si ñaari kaay lu metti la si amateur yi lu metti la tamit si CNG parce que cas bii nii amul fenn fu mu ko donc mbër bi su ko neexee euh, CNG dina ko sanctionner parce que ñëwul bëree si pourtant am na ay raisons yi valable liy tax mu bañ a ñëw bëree donc situation bu grand la euh, nañu nañu nañu xoolaat suñuy comportement bañ a topp suñuy nit dafay dafay dafay ragal parfois ragal def yenn yi moo la mën a dimbale si lu bëree quand koy gis ci réew mi dafa bari. yi nga xamante ne histoire rayante bi dëkk bi dem na ba léegi sécurité amatul sax ci réew mi. da tiit sax yow mi nga xamante ni da ngay daani sa doole génn ban message ngay lancer jeunesse na état jouer rôle xool nu muy jëlee ay responsabilités parce que le Sénégal est un de référence en matière de sécurité publique en matière de sécurité internationale aussi loolu bu amee dëkk bu am soxla sécurité nos jàmbaar sunu sar sunu policier ak sunu armée le plus souvent ñoom ñoo nekk le premiers contingents yi ñu fay yónni te saa yi ñu demee mission satisfaction lañ ci am donc ñooñu pourquoi duñ leen exploiter duñ leen utiliser pour ñu mën a sécuriser nit ñi nekk si biir dëkk bi ak suñuy bien actuellement boo yoree moto qui a peur nga daw circulation da ngay ragal ñi agressé la boo daxee boo bu guddee ngay dox même sa biir koñ safit du toog donc na état jël ay responsabilité xool nan la ñuy sécuriser nit ñi sinon population bi si boppam mooy révolté wu te si population bi révolté wu dafay indi benn guerre civile day doon entre population ak soit contre les agresseurs ou bien ay bandits donc état na na tirer tous les enseignements qu'il faut si li nga xamante ni moom lañu nekk di ko dund temps yi buñ ko defulee man je suis sûr et que après l' état va regretter ce qui va se passer après. peine de bi gars yi di di di wax lo ànd nga ci. waaw xam nga lu sariya wax parce parfois buñ ko mënee appliquer ñu appliquer ko parce que quand il y a trop de masla ci loi après ñii ñi duñ ko ragal mais tant la sanction est très dure. dafa dafa yi dafa nekk sanction bi nga xamante ne bu ko Dembélé defee day xam ni kii du ma si génnati ilaa yoomi dina dinaa jéem a éviter lu mel noonu mais su ma defee ma xam ni du ma defee un mois deux mois dinañ ma libérer je vais encore le faire loolu mooy wax ci il faut que les sanctions soient dissuasives sanctions yi am doole de telle soto kenn du ñemee def li nga xamante ni euh, crime la wala li nga xamante ni day day lor sa morom euh, doomu aadama jërëjëf dembale maa ngi lay jaajëfal baax ci leeral bu am. vraiment di ba saare liggéey bi rafet na vraiment ba ma gisee seen nombre d'abonnés yi ma gis seen présent si réseaux sociaux yi ku mel ni yow nga présentable d'abord présentable dafa am solo di poser des questions pertinentes xam nga loolu di leen si encourager y a pas autre chose loolu rek la félicitations merci jërëjëf